feebar ba amé tambalé li xewoon may rappelé ni Ousmane Sonko ñaar lañ ko doon topé dañ ko doon topé viol moy nga sakku nit ki ci si ci ay anam yo xam tamit yoon daf ko bañ lu ci mel ni menace de mort lu ci mel ni contrainte ak yu ni mel benen bi menace de mort si bopam nga xam dafa bok élément constitutif sax benen infraction bobu di viol lolu mo indi tay procédure bi ngeen gis ni yépp lolu mo indi bakken yi nga xam ne rot na te may profité également ci occasion bi di jaalewaat seeni njaboot di ñaan suñu borom mu xare leen ci àjjana ndax euh, li xew tey dafa metti mënuñu ci woon wax nag ndax ñun ay légaliste lañ procédure bu amee foo xam ne dafa toll dafay baax nga taxaw ànd ak dal waaye bu ñu ñëwee ba ci càppandoog ba àtte bi jub dafay baax nag ñu laal fa muy méttee te fa muy méttee mooy tooñ mo am ci kaw Ousmane Sonko ndax mbirum viol bi wax amul mbirum menace de mort bi wax amul té lolou du Ousmane Sonko ko ma ngi rappelé né bañ koy atté téwul ça veut dire que né argument yi muy dossier yi mu indi djébal ko askan bi ñu gis ko lolou yëpp def ko malgré tout juge bi ci bopam néna viol amul menace de mort amul donc dafa nekk lu doy war lo xamné tay lañ mën ko tay lañ ko mën naqarlu lañ ko mën a jooy bi am moy décision bi nga xamné juge bi ran nako infraction bi nga xamné mom la retenir si Ousmane Sonko bop moy corruption de la jeunesse. may rappeler ne kayit bi nga xamné juge d'instruction, mo moo saytu woon dossier bi jébbal ko chambre criminelle pour mu atté Ousmane Sonko corruption de la jeunesse boobu nekku si fay bax tamit ñu léral ko. corruption de la jeunesse bi si jour biñ koy atté le procureur génnee tek ko ci table bi ñun débattre ñu si parce que fekke wuñ waye buñ ci si dañ dañu leen leeral askan bi ne leen corruption de mineur de de la jeunesse boobu waxi tiaxan la waxi tapalé la ndax corruption de la jeunesse ñom jënuñu ñu ko xam mënuñu ñuko at topé atte ko Ousmane Sonko ndax corruption de la jeunesse mok li ñuy wax incitation à la débauche mok li ñuy wax proxénétisme ñoo bokk ka pour mu mëna am il faut ki nga xam ne moom lañ ko tek daan mu siy tiire li ñuy wax subside moy alal wala lu ñu mel Ousmane Sonko mënuñu ñuko topé corruption de la jeunesse donc waxi tiaxan la si anam bañ ko indé parce que may rappelé nag ne fii Sénégal justice nag dafa am nag nu mu war a taxawee amuñu sañ-sañ topp nit ko chambre criminelle si loo xam beaucoup bokkul si ordonnance de renvoi juge d'instruction bi il faut mu enquête bi corruption de la jeunesse beaucoup si instruction bi corruption de la jeunesse beaucoup si donc amuñu sañ-sañ ñew si jur bañ koy atte indi corruption de la jeunesse te jaarale wuñ ko si anam yi ñu ko wara jaaralé. donc baxul. mais même bu doon sax def nañ ko mënuñu toppee Ousmane ko corruption de la jeunesse léegi nag jàngat gi ñu si am mooy viol bi teggi nañ ko menace de mort teggi nañ ko. ni sax yoo xam ne que ñu ngi fi woon ñu defar ay.